Aliou Cissé rabajeete na équipe bi nga xam ne jàpp na ni moom la war a mën a yóbbu ci première match bi ñu bari nag àndunu ci bala maa sori donte mën naa dóor Gambie 10 jours ndax loolu du événement waa équipe bi ni mu ko classé wax dëgg yàlla daanaka sorewut ak kuy làmbatu ma sant leen gërëm leen ànd beeg Aladji Malick TV am na solo ànd boobee yàlla na jëm kanam ñu sàkku ci yéen abonnement yow mi door a ñëw sport nga mën a def sab abonnement ndax sport bi ñuy dawal dana tax lépp lu ñu mën di dugal mën ko am 100 cent sport ma nga noonee équipe bi nga xam ne teg na ko nag damay dem ci li nga xam ne mooy kanam gi ma jàpp ni foofee daanaka manees na ko maanaam gàll guuse waaye nag ba tey mën nañoo ànd ak moom foofu ndax Abdou Diallo moom la def ci point bi logique euh, ñu bari doon nañ xaar euh, ki nga xam ne mooy Jackson beneen côté bi Ismaïla saar Iso ak euh, kile di Ilimani attaquant yi di ki nga xam ne mooy ñancoo international Sadio Mané loolu it yaakaar naa kenn mënu cee wax dara waaye digg militaire bi fa la coow lépp nekkee ndax digg militaire bi ñu ngi gis mu am Papa Gueye ak euh, Lamine Camara ak ki nga xam ni euh, daanaka moo teppee jaata ci ni ñu amee euh, mbir yi loolee tamit nekk loo xam ne lu ñu mën a jàpp ni wax dëgg yàlla du compo bu Sénégal war a teg ci bile match bu ko amal njëriñ ni ma leen ko waxee ci bopp xibaar tamit day am solo ndax match bi Sénégal jàpp naa mu dóor Gambie waaye digg militaire bi yéen ñi di wax sax xam ngeen ni wala di ma teewlu leen ci te it boo xam ni dana jur polémique ñu ñaanal jàmm équipe bi ak salaam ndax deuxième trophée Aliou si nu ko dig te war nañ koo mën a gëm défense yi nag am nañ fa Moussa Niakhaté loole tamit daanaka moom lu ama am solo la Niakhaté ci biir défense bi nga xam ne moom moomee taxawaayam dana ca am bu baax a baax Edouard Mendy ci camp yi Kalidou bari ci digg bi euh, Abdou Diallo ak ki nga xam ne mooy Ismaïla Jacob loolee tamit daanaka nu mu ko mën a taxawee ndax ñaari gos la Jacob ak Diallo nu muy lijjantee loolu beneen bi mooy Niakhaté moom ab droitier la waaye axe central la gën a mën a football xanaa mu daal njaaxate ci côté droite bi jël kii taf kii Abdou Diallo ci wet gi euh, kële mu taf ko fële euh, Jacob ci beneen côté càmmoñ bi affaire yi daal gars yi jaxasoo na lool man sama bopp wax dëgg yàlla waaye nag lépp tawféex ñu gërëm leen ci kanam yeneen information loolee après match bi lay doon